mbokk yi xibaaru suba gi léegi dañ ci ànd ak euh, Fatima Ba xibaar yi ñu doore kook njiitu réew ba woon président Abdoulaye Wade mi yeesalaat njëbbalam ci sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké di xalif général des Mourides moom Abdoulaye Wade euh, fekk ko démb ca këram bi nekk ca HLM na li ko gën a metti mooy li mu mënta yeggali chantier yi nga xamante ne dooroon na ko ca Touba waaye am na njort ne kenn ku bokk ci partiam boobu di parti démocratique sénégalais dina yeggali boobee liggéey sëriñ bi itam rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xamante ne moom Abdoulaye Wade jot na ko def euh, foofee ca Masalikul Jinaan ñu ànd ceeg Pape ñëwoon yeesal njébbalam ci xalif général des Mourides ki fi nekkoon njiitu réew mi di maître Abdoulaye Wade nag nee na lenn dong moo ko métti lu mu jeexaloo chantier yi ca dëkk bu sell boobu di Touba waaye wóor na ko chantier yi dina yegg te kenn ci njabootam moo koy def. kon Mbàkke tànk yi mu dox tànk ñëw ziar si la. tànk ñëw feddali la nee na dem moom benn naqaru xol la am bu wóor mooy yéene gi moom amoon yëpp jëmale ko Touba yàlla def mottaliwul àggalewul li mu bëggoon Touba yëpp incha allah su neexee yàlla ki koy àggale si njabootam lay bokk rafetlu bu baax ngan gi nga xam ne njiitu réew mi ñëw na ko amal ko foofu ci xalif général des murit suñu sukkandikoo ci yoru kàddu Mouride yi Serigne Bass Abdou Khader nee na wàdd bépp ndigal bi nga xam ne ah, xalif bi waxoon na ko ko ba mu jugee ah, biti réew ñëw ci réew mi sàmmoonte na ak moom. mu waxoon la ne la. li nga jëf ci réew mi. li nga jëf ci réew mi. fexe ba bu ko dara yàq. na fexe ba bu ko dara yàq. loolu itam nee na mi ngi la ciy sant. ne loolu itam mi ngi la ciy sant. ndax yëg na ne. ndax yëg na ni. sàmmonte nga ak ndigalam. sàmmonte nga ak ndigalam. sëriñ bi nag nee na. ne sëriñ bi nee na. mi ngi fàttali sa digg moom. mi ngi fàttali sa diggante moom. ci li nga xam ne dox na fi. jépp yitte joo xam ne. jëpp yitte joo xamante ni. waxoon na la ko. waxoon na la ko. muy lu jëm ci yitte yoon wi. mu jëm ci yitte yoon wi. ak réew mi. ak réew mi. defe nga ko ni mu ko bëggee. nee jëfe nga ko ba mat. kon laq nga ngërëm moom. laataa xalif général des Mourides kii di maître Abdoulaye Wade euh, dugg naag moom nag ci nekk ñu waxtaan. lépp fukk jàpp fukk ak juróom ci ay simili ki fi nekkoon jiitu réew mi nag ba mu génnee euh, ngir dellu këram euh, taalibe ak ña fa nekkoon yépp di ko tàccu ba pare di ko tatagal. moom Abdoulaye Wade doomam ji di Karim Wade procès am dina dooraat tey jii ca palais de justice président de la cour di Henri Grégoire Diop moom dina daal di rek déglu yeneen i témoins ginnaaw bi nga xamante ne déglu na déglu na ki nga xamante ne moom moo di Mbaye Ndiaye jiite woon agence des aéroports du Sénégal ak Pierre ak Boba yeneen itam ñu ngi leen di xaar tey ci boobu boobule procès dinañ ci dellu ci suñu yeneen i jotaay xibaar jëwriñ bi ñu dénk wàllu gouvernance locale ak développement et de l'aménagement développement du territoire du Omar Youm dina daal di jiite ab ndaje tey boo xamante ne dina ko sekk ak ñi jiite gox goxaat yi euh, ndaje bi nag fii ci Ndakaaru lay doon ca Grand Théâtre ñu nar fa waxtaanee li nga xamante ne moom lañu ñu duppee acte 3 bu décentralisation président Macky Sall itam euh, dina fa teew ngir waxtaan ak euh, maire yi ci Sénégal ngir xeex xiif fi fële ca Fuladu ca diwaanu Kolda ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay éclaireur dugal ci seen loxo ñoom nag ci lu ci vacance ñu ngi rek daal di yëngatu ci li nga xamante ni moo di maraichage di jàppale soxna yi di leen dimbali di leen ci yenn technique yoo xamante ne yu bees la ngir ñu mën a liggéey seen suuf soosee ñu mën koo jëriñoo euh, ngir rek xeex xiif bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofee ca diwaanu Fuladu ñu fekk fa Abdoulaye Diallo. Kolda dafa bokk ci diwaanu Sénégal fu ndóol mi amee doole lool ngir xeex ndóol mi ak ñàkkum lekk ay ndaw yu bokk ci kuréel yi li ñuy duppee éclaireur yu Kolda ak Ziguinchor ñoo jël seeni vacances yi yépp jubale leen ci wàllu sardine yi ci légumes yi dañu daan jàngal jigéenu Kolda yi yëngu ci boobu fànn nu ñuy naatale suuf suñuy war a béyee seeni sardine. le bio agricole lañu nekk di promouvoir parce que loolu rek mooy joxe rendement bu baax. amul chimique amul toxique légumes yu ngay lekk yëpp nga xam ne c'est naturel c'est vous c'est les déchets qu'on fait fertiliser suñu planche ñu dugal déchets yi ci biir def ñax bi ba mu baax ñax bi jël déchets yi animaux yi def ko ci kawam jël doomu taal bi def ko ci kawam. ñu xam njëriñ wi ci boobee jëf yooyu jigéen ñooy lu yaatu waaye xol bi leen gone yi woon. dafa am njëriñ parce que li ñu nekk di bëgg déjà njëriñ seen réew benn. ci kaw loo xam ne laajuñu ci benn dërëm loolu jëf la joo xam ne yàlla rek ngay liggéeyal wala sa bopp ngay liggéeyal. li li ñu jàngal ni fan yi day tax suñu production yokk fumier lañ ñu jàngal compost ni ñuy defaree compost parce que auparavant da ngay gis nit ñi dañuy jënd euh, engrais ñëw di ko def ci tool yi. wàllu sardine doon na pàcc bu am solo lool ci biir koom te jigéenu Kolda di si yëngu bu baax a baax te doon na secteur bu mën a jural ndaw yi ay xëy yu bëre te indi yokkute ci wàllu mbéy mi moo waral waa agronome vétérinaire sans frontières def wàllu sardine seeni moomeel. nous sommes venus en appui à dañu ñëw jàppale lëkkaloo bi nekk diggante gone yi ak jigéen yi liggéey ci sardine yu saare bilaal yi femme maraîchère de Saare Bilali wàllu njaayum seeni meññeef yi doon na jafe-jafe bi gën a tar ci seeni yëngu-yëngu moo waral ñuy sàkku ndimbal ci nguur ak ci bëpp partenaire ngir ñu mën a jaay lépp li ñu góob Abdoulaye Diallo ñu koy jaajëfal banaan ak yeneen xeetu fruit manqué lool fii ci Ndakaaru bi ñu demee ca marché Tilène ak Sandaga seetlu gi moo di ne commerçant yi dañoo jàpp ne frontière yi ñu tëj diggante Sénégal ak yeneen réew loole moo ko waral ñuy sàkku sax ñu ubbi yooyu frontière ngir marché bi mën a amaat xar kanam gi mu amoon ñoom it ñu mën a gis seen bopp ci li nga xamante ne ñu ngi ci yëngu ñu ànd ceeg reportage Lamine Diédhiou ci caméra bi Younous Diatta na daanaka doon na doom bu góor ci suñu réew si Sénégal bu ñu gëstu si ay table ak ay cantine yu bëri pour nga gis ko fa daanaka lu jafe lay doon ci gis-gis jaaykat yi banaana daal manqué na. banaana manqué na mais li ko manqué oh, loo xamante ne lu tuuti la rek mooy baaraas yoon yi la quoi. banaan am na fu mu fu mu daan jóge ba léegi am na foofu. avant daa doon manqué bu baax mais ren presque banaan rek moo manqué boo manqué bu xamante ne ngay laaj ñu ne la amul. client bi tamit di koy déggal. en gros cax nañu bëggoon ñëw jëng mais daf ñu si defal xool mais franchement dafa wax banaan dafa manqué moom. waaye fi mu toll nii du banaan kese moo jafee gis pour nga gis yeneen fruits lu ci mel ni ay avocat wala ay goyaaf lu jafe tamit lay doon. fruits local yu bëri manqué na comme avocat manqué na mais commencé na ñëw mais avocat bi ñu am instant bi ñu arrangé parce que day gaaw a yàqu. non du banaana kese fruit local bi tamit bu yëgi ne bi yooyu amul te boo ko am fenn comme corossol exemple goyave goyave instant yii da Sénégal ba sonn. waaw lu mel ni avocat lu mel ni banane plantain lu mel ni ananas yooyu yëpp daanaka bëriwul temps yi ah. di commerçant yi lu ñuy ñaan mooy nguur gi. na jël dogal ngir ubbi frontières yi ngir fruits yi mën dugg si. ñun ñuy woote mooy ñu bàyyi frontières yi moo ñuy arrangé bi dañ koy am. parce que soo liggéeyulee tamit du la arrangé quoi. ay fruits yu manqué te sénégalais bëgg ko lool mu nekk nag lu ñu war a saafaraal ngir askan wi mën ci jot balaa tabaski. soxna yu bëri bu ñu amee doom dañuy daal di jël poids bu bëri loolee ñu jàpp ne euh, grossesse bi moo ko waral ñenn ñi jàpp ni itam nàmpal gi ak lekk gi ñu lekk loolee moo ko waral lu ci mënti am jàpp leen ni diététiciens yi ñoom jàpp leen ne loolee baaxul ci wér-gu-yaram ndax day tax rek yenn feebar yi yomb la te itam ngay sonn bu baax a baax ngir ñàkk boobu boobule poids nga xamante ne dafa yokk ci yow euh, wax nañ itam ci méthode de contraception yi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy faral di utiliser loole yëpp di faral di yokk seen poids bu baax baax a baax loolee ñu xam ne baaxul ci wér gu yaram ñu ànd ceeg reportage Nafissatou Sylla ci caméra bi Younous Diatta Diafara Ba ñu wasinee rek la ñuy faral la seen poids di yokku ñu gis ñi nag li waral loolu du lenn lu dul lekk bi. di lekk rek te mel ni sama genre gi moom c'est pas bon. surtout boo amee doom ba pare jël poids xam nga boo toogee noonu di lekk di naan tëdd doo def sport tamit da jël poids. pendant nit ki ëmb li mu jël ci poids dafa bëri trop parfois day jafe pour que bu accoucher mu perte ak loolu mu jël yëpp. peut-être 10 ba 12 kilos yooyu baax na mais su fekkee nit ki dem na pour nga perdre excès boobu yëpp nag dafay xaw a jafe. dañuy bàyyeeku tamit loolu moom c'est vrai parce que am nga après boo amee doom da xaw a tayal ndax bébé bi tamit ça te prend du temps. suñu yaay yi nag dinañ faral di ñaax ki seen i doom ñuy lekk bu baax suñuy nàmpal rawatina bu dee doom bu góor lekk gu bëri googee nag léeg-léeg mu juur poids bi di yokk. mais bu ñu nekk da ngay soosu di nu ñu yëngal ak nu ñu yëngal ak xool parce fekkee tamit da nga sa yaram sa forme doon nu mu mel lekk loo xam daf a kii duñu gaaw dugg ci ay affaire yëngu damay toog toog ay ñaari weer congé maternité. leneen lu ñu nemmeeku ci liy yokk yaramu jigéen ñi bokk na ci contraception hormonale ngir sage-femme bi nag boo jël garab yooyu faw rek nga am suivi bu war. ñu lay xoolal sa régulièrement bu ëppee cinq kilos nag na la ah soxna si dafa tension ndax kat sa poids bi fi amoon ah bii mu ngi yor kon boog na nga surveiller sa alimentation. nga exercice ci kaw loolu yëpp nag ñu gis ni li ci ëpp solo mooy nga am alimentation bu équilibrée. comme moo doon lekk lu toll si yàpp nga lekk tuuti lu ko ëpp wala si jën. c'est pas que ngay gaadalu di yokk loo xam ne dala yokkal yaram te doo bouger trop. respecté ni ngay lekkee am na solo lool ndax doo bàyyi ba sa yaram yokk ngay def nu nekk pour jeex ñu gis ni nag fagaru moo gën faj. na Nafissatou Sylla ñu koy jaajëfal xibaaru biti réew yi jàppaleen na ca Centrafrique ONU daal dina indi benn force bu bees bu fa war a wuutu euh, miska bi fa nekkoon doon euh, dimbali euh, force yi fa nekk ngir rek jàmm dellu si foofee ca Bangui ginnaaw fitna gu métti biñ fa nemmeeku woon léegi beneen force bi remplacé MISCA boobu mu ngi wuyoo MINUSCA di jokkalante leng yi nag dina am tey bu ñaari waxtu jotee maanaam 14h boori tisbaar yooyu dina am ca aéroport bu. baa ngi Pape Cheikh lii lañu fi yoroon ci ay xibaar. merci beaucoup il est 8h11 ñu ngi lay gërëm bu ca kanamee 10h ñu amaat beneen jotaayu xibaar euh, ci tubaab lay doon daañu ci ànd ak euh, Leya Soukeyna Ndiaye jërëjëf euh, Fatima baax ñu ngi lay gërëm bu baax ah mais fukkis boobu ngeen def ci xale jigéen yi baax na am na solo ku ci dañoo sédentaire trop ñoom tamit dañuy toog pata foog ni ñoo ci ne ku ci amul yaram sax ñu ne nekkoo ci jàmm mel ni concours la ah. ah loolu loolu defe naa baaxul ah il faut ngeen di defar seen yaram bañ a toog rek di lekk foog ni ku ci di jul Euh, nekkuloo ci jàmm ah alors que euh, la santé avant tout c'est important